mais bon ñoom bi ñu taxaw fii comment ah kay kamal man xam nga dama am habitude di génn am am benn kii bu doon ñëw di ma indil benn affaire comment il s'appelle en comment s'appelle encore sax mooy ñiy do ñiy yóbbu cag-cag yi cag-cag justement cag-cag ñëw am lu ma doon livré léegi ba ma cag-cag bi di livré man ma ñëw di jël lu ma cag-cag bi di livré man daal ndekete waa ji seen na ma ma taxaw rek mu ñëw rek dóor ma coup d'épaule après bi affaire yi feeñee nag la xale yu góor yi ne depuis 11h ñu fi toog xam naa di ma wër man gisuñu ma léegi nag kon gisuñu ma am euh, am ku ne ma ku ne ma jàll rek traversé rek am ku ne leen waaw kay ma nga nële kenn ki kenn ci ñoom trois daal di joxoñ sama sama sama kanam daal di daa mel ni ma nga nële bi ñu waxee loolu rek. kooku jóg waaxu waaxu bu dëgër rek dóor ma coup d'épaule man daal ku ma gën a yéemu sax yàlla sax man daal ma daal daal di taxaw heureusement que j'étais avec mon mon neveu bi nekk sama kër kooku daal di koy jàpp daal ni ko yow looy def nii ma nga gees a gees xam nga gees maan yooyu dañuy dañuy ràqaaju bu ñu bëggee sàcc dañuy ràqaaju génn wala ñu bëgg a dóor nit léegi après nag ci la am ku ne ma mère ñii 11h ba tey ñu ngi fi toog mel ni dafa am lu ñuy rond 11h ba tey ñu ngi fi toog mel ni dafa am lu ñuy rond ndekete yow man